xam naa dañu ñëwaat ci thème bi. waaye tey da nga wax pour ma dugalal la sunu artiste dama bëgg nga ma artiste fii toj parce que bëgguma xale yu wéet ndax boo duggee ci thème bi kese te thème euh, dañoo ne thème ak ak culture. Ah, eh, culture tey. ñi invité tey. du sax benn artiste. dañ koy njëkkati ci nga xam ni moom moo sos groupe bi hmm? muy lamin Faye. Lamine Faye guitariste la woon fa nga xam ne moo nekk super jamono. Hmm. bi mu génnee super jamono. créé benn group bu ñu wax Lemzo Jamono. Lemzo Jamono menn. ñu defee ni dafay jël ay woykat yu ñu xam mu jël ay xale yu ndaw xale yu ndaw yoo xam ne dafa leen jàngal musique ki nga boqal daara. Mhm. boq ak moom armée. Mhm. boq ak moom dugg néegu góor. mënoo ko fàtte sa àdduna. déedéet ndax ñii maak ñoom ñoo bokk ndey ak baay. bokk benn école kenn mësu see xeex seen bopp kenn mësu see xuloo seen bopp. Mhm. te ku ci nekk téye nga fi ndakaaru muy Alioune Mbaye Nder mii. soso Tiwaawan Fallou Dieng mii moom a njëkk a jox micro muy Reug Reug Bodian bu dul loon moom kon ba tey maa ngi continuer di fecc Moussa Traoré nga ne le tey ki nga xam ne moo fi toogal Elie Diagne mooy Baye Demba Ibou mbay ak ki nga xam ni mooy per bu xar mhm. sama guitariste bi Amady ak sama rakk ji nga xam ni mooy joué di Mamour lém mhm. soo jamono te dëkk bi def partout dans le monde entier tournée internationale. Mmh. def ay album yi album yi album yi album ñii ñëpp ku ci nekk star nga. tey vous et nous dem jëli leen indiwaat leen sur le plateau ñu nar leen a tëggal kon tey lu rëy ngeen nar a am. voilà kon nag lu rëy euh, nañ nar a am waaye yéen tamit euh, si vous venez d'arriver sachez que vous et nous tey dafa nar a ala ndaw me parce que ku xamul Lemzo jamono dégg nga ko ku ko feccul it euh, say waajur fecc fecc nañ ko say dëkkandoo fecc nañ ko ñun ñi daan nañ ko fecc yaay salaam buur la rërëg bu jaan. waaw ah, waaw papa salaam loolu mënuñ ko fàtte loolu sama jamono la. <laughs> morceau bi ñu lay ubbil mu ngi tudd Setsima. Setsima men mooy morceau bi nga xam ne Lemzo Diamono moom la njëkk a ubbi Aly Mbaye Nder def ci felt sol li nga xam ne ay sancaat yor kaan <laughs> boobu morceau Tafa Gueye bi la. waaye Setsima. moom moom la mooy titre bi nga xam ne mooy titre phare moom lu tuddee orchestre bi nga xam ne mooy existé existé di dem partout dans le monde entier effectivement maa ko xam moom la ñuy may léegi nii Aline Mbaye Nder paa <laughs> Aline Mbaye Nder ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di jaajëfal Fallou Dieng ak waa Lemzo Jamono tey nag dafa am loo xamante ne lu rëy la balaa ngeen di tàmbali mooy euh, 2STV YouTube on atteindre nañu un million maanaam un million d'abonnés un million de Sénégalais quand même voilà euh, atteindre nañ ko mais tey dama bëgg tamit ñu lancer parce que euh, normalement un an nañu war a tegaat pour am beneen un million. mais man dama am benn defi boo xam ne yéen ñi di seetaan tagga leen seen ay nit. xale yi am ngeen melokaan yéen xale yéen ñi seetaan bàyyi leen seen melokaan tagga leen seen ay nit ngeen tagee seen ay am di jàmm ñu daal di ñëw abonné wu parce que YouTube bi vraiment actuellement on est leader sur euh, sur YouTube ak euh, actuellement sa sondage bu ñëwee je pense que 2STV moo nekk ci kaw. Euh, Fóot saabu naka la Olof wala olof Ndiaye wax saabu du fóot boppam waaye yenn saa yi fóot sa bopp da see baax bu xëbee fóot boppam ah waaw bu xëbee rek la nga ca kaw Papa Salam ah. barke Serigne Bamba ña nga ca kaw kon nag voilà euh, ñu ngi leen di nuy di leen jaajëfal vraiment di leen ñaanal jàmm ci biir vous et nous ah, merci beaucoup eh, salaamaaleykum 2 salaam hmm, ah, jongo may salaamaaleykum góor yu góor yi <laughs> salaamaaleykum aleykum salaam père am na mbégte am na mbégte loolu vraiment ñëw defaat euh, vous et nous parce que defoon nañ ko mm-hmm. mais lu ñëpp bokk foog nga boole ci ñëpp te euh, je pense que fii suñu kër la comme on a eu la euh, on a eu à le dire à mm-hmm. chaque fois bu ñuy ñëw dañuy ànd ak fierté ak cawarte bu mag xam nga c'est vrai que fan yii yëpp maa ngi ci woon benn projet mais dama dagg affaire yi sax pour ñëw représenter Lemzo Diamono parce que quand parle de Fallou de Salam et de Lamine qui peut venir parce qu'il est un peu mhm. ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yëkkati. amiin amiin ah vraiment donc suma wareef la ak Fallou. ak ku mën a jàpp rek parce que xale yi ne suñu ginnaaw yëpp jàng nañ ci musique gu Lemzo jamono boo ko ci fëgg tey 4 heures du matin ñu tëggal morceau yooyu. donc loolu aussi mbégte la. donc on va démarrer avec Setsima mais Fallou s'il te bu fi wax ma seeti Alima bu fi wax le tey le cœur à ses raisons lay wax bu fi wax le cœur à ses raisons le grand ambianceur bu fi wax laa wax moom dafa dëgër day wax ma seeti ah lii ma ñaa wala mu naan le la lan yow tam yow tam man daal tey le cœur à ses raisons laa lay awu man le cœur à ses raisons le cœur à moom mu def le cœur à ses lay wax le cœur à